bu Pape bi pourquoi nga jàpp ne nomination bu bëri coow RTS la Pape la wala Racine Talla la. ñaar la. oui ñaar ñoo waral coow bi. waaw benn bi c'est politique. Hmm. benn bi c'est maanaam financier. Hmm, koppar. koppar bu dee politique waa tim 35 pour cent ñoo bëggul Pape nekk directeur RTS. ñan ñooy tim 35 pour cent. mooy benn ñooñu àndal. ok ñoom dañ jàpp ni Pape Alé acteur clé la woon ci li leen xaj nguur gi. Mhm. ñu teel ko benn in viscérale boo xam ne duñ ko ko pardonné te jàpp nañ ne Pape Alé directeur RTS metti wu leen de maanaam la muy dem toog RTS gêné wu leen xamul leen gêné. Pape day bokk ci état bi. président day dem kan, nga <laughs> nak mom avion protocole bu demee nga ñew tok palais bu dem maanaam loolu la ñuy wut gis pap Alé. lool mo len nakati wóor na yalla li mo len nakati bu ron xolo bu ron direct bu ron directeur RTS amul accès ci yoyu seen yoon newul nguur gi la ñu yéenewul Pape Alé. président di dem nga nak mom moom ci avion présidentiel président wacc nga taxaw xaar hein muy wax nga yóbbu équipe bi palais yooyu la ñu yéenewul Pape Alé Niang <laughs> nguur gi. <laughs> maanaam gis pap wër na yàlla gis pap aale ci nguur gi lañ ko yéenewu loolu muy itam cinq pour cent. waaw. beneen bi pap ale menace la ci li ñuy am. comment souvent ci ay télé la ñuy liggéey wala dañu am xam nga pap aale ñam. Hmm. ni ko patriote yi accompagné bu jotee ci RTS. Hmm. matériel ak technique ak moyens yi RTS am chaîne yu bëri day dee. Mais papa, Harley, ah, il ne sera pas à la RTS euh, comme journaliste, mais comme manager. Mais manager, organiser les plateaux, les débats, Tidji RTS. RTS, vous ni faire hmm. des débats politiques, hmm. couvrir des actualités. Chez nous, Monopole, donc ils se sentent menacés, leur gagne-pain. Donc, papa, arrangez-vous.

ndax da doon fay ay salaire yenn chaîne télé. ah fii loolu kay euh, Moustapha Diakhaté wax na ko fi. waaw ah, looluy dayra na. ah Moustapha Diakhaté wax na ko fi. am am na ñoo xam ne 30 millions lañ leen doon jox mois. am ñoo xam ne 20 yoo xam ne fii. Mm. seen masse salariale produire lu ko fay. Mm, mm, pourquoi yow la candidat des pouvoirs échec rek ñu ne ñoom ñëpp dañ nekk fayit. <laughs> loolu lañ war a laajte te ñu daan wax ni kooku c'est c'est l'ami des patrons de presse. kooku perte élection patron de presse na dem nañ fay waaye xaayaan ku dégg séeréer nañ jaal ci leneen. <laughs> nen jàll si dañuy euh, fontoo seen bopp rek. nen nen nen jàll si euh, leneen général Moussa Fall aussi euh, nit ñi aussi ñu ngi koy xaar bu baax parce que déjà génne nañ ko si bopp lu kii bi mais am na ñuy dem plus loin ne vraiment il doit rendre compte am na ñeneen ñoo xam ne ne c'est un général war nañ ko utiliser à d'autres fins. bon oui en général, on ne l'humilie pas. Ouais, voilà. Pour beaucoup de raisons. Pour des questions sécuritaires même. Déjà, film diar. Oui. foo Diar, un petit tourbi, bi ñu ko fidèle. Hmm. am na un xam fi mu toll nii foog na mhm. héros il s'appelle général Moussa C'est vrai c'est vrai. est il s'appelle général Moussa Fall mi ngi ci mhm. à des postes stratégiques et autres. je suis pas d'accord qu'on l'humilie. Hmm maintenant cela ne veut pas dire que enquête du am pour yu fi mm. mais man lima d'accord d' accord mooy ku mel ni Moussa Fall. Mm. dañ koy nommé fenn génn bu dëkk. def ko ambassade. voilà ambassadeur wala attaché militaire conseil militaire wala dara benn dëkk ba ko fa. et le de très près. non do ko ba ci réew mi. waaw. genre yooyu souvent du leen ba ci réew mi poste clé yo xam boo ko occupé booy génn ñu lay génn dëkk syndicat mm-hmm. chef gendarmerie chef service de renseignement. kon d'accord aussi ñu naan dafa wara teud tëdd. oh ñooñu seen avis lañ joxe. oui mais man sama avis du loolu. d'accord man sincèrement sama avis du loolu quoi. Mm-hmm. en général on l'humilie pas quoi. Mm-hmm. man bon man nak loolu sama lecture la ñu bari nak mën nañ bañ a d'accord ak man. dëgg la dëgg la gisee pour beaucoup de raisons sécuritaires. ku xam nga gendarmerie dafa sensible ci sécurité président. c'est très sensible. ñoo yore sécurité président ku mel ni comme euh, maître Clé siré dorli Ly moom dafa jàpp ne euh, le président de la république Macky Sall euh, dañ ko war rek ni ñu koy waxee sax toppee indiwaat ko si réew mi ndaxte <laughs> lu mu fi def surtout décret yi nga xam ne mujjee na ko signé. waaw Macky tamit même position la man gëmuma ne Macky Sall dañ ko war a. humilier ah pour yow Macky Sall bi ñu ko toppee di kii. Macky bu ñu ko toppee fi ñu jëm ak moom ndox amu fa ñun buñ doon moom ñun dañ ko gën. xam nga Macky dafa toppante ñun ba mbëkk miir bi. ñun askan bi. ñun askan bi dañ ko tane. xam nga Macky Sall gëmuma ni am na nit ku ko gën a causer du mal ci askanu Sénégal à part les yi jiitu avant indépendance sincèrement laa la mm. gëmuma man ni nit yilif na nit ñi causer tellement de tort et de mal que Macky Sall après l' indépendance man gëwuma loolu

bu dee Macky Sall. Mm. patron de Benno Bokk Yaakaar. Mm-hmm. parce que Macky ci lobbying la jëm. lii da koy réintégré waat rek mooy 4PM bi. waaw c' est juste pour indiwaat ko ci scène internationale bi après dégâts yi mu def. Mm. xam nga bu dee le président de la France moo la mandaté. déjà sax les problèmes du interne du pays. Euh, jot nañu waxtaan foofu laay ñëw foofu laay ñëw si. léegi ku mel ne Macky Sall boobu noonu. ci lobbying la jëm. il va offrir ses services au plus payant. Mm conflit d'intérêt mën entre benn homme d'affaires bu fi par exemple wala benn société multinationale bu fi bëgg jot benn autorisation d'exploitation or pétrole jama ressource lu mu munti doon. Mm. mais kooku Macky eh, eh, introduire ko ci dëkk bi. moom kooku lu muy ut assemblée war ci àttu. Mm. te Macky am fay député loolu conflit d'intérêt mm. soit Macky il s'arrange comme ancien président mandat ci suñu affaire intérieure APR continuer di am di am député mënu ko ñu dissoudre parti man loolu laa ñu dissoudre la. Ah, ah pour pour sécurité nationale. mais attends il faut arrêter. Euh, ah, am telling you, li ma lay wax. am yow kay. Ah, ex euh, dissolution euh, gis nga ñu uyu tey nga naan ay dissoudre xam noo koy dissoudre. noo koy président parti bi wala patron oui day nekk ci activité privée APR. mbaa mu téye APR génn ci activité privée bi APR continuer di exister ak keneen wala Macky bëgg a téye ñaar yi ñu dissoudre ko xam nga lu sax loolu danger la xam nga ñu ngi lay wax naan la Macky Sall. Hmm. mi ngi waxtaan. ak Macron. ci lan di si maanaam di secret d'État. Hmm. suba dañuy bëgg voter benn loi assemblée. Hmm. par exemple commission de sécurité wala défense. mais des députés de benn siège bu génnee rendre ko compte mu rendre compte Macron. yaa ngi gis link bi mu leer. waaw lii mooy danger bi. mooy danger moo tax man la soit day bàyyi APR wala ñu tas parti bi. ñu tas parti bi. maam Macky mënatul ko mënul évoluer ci secteur privé di servir à des puissances étrangères ba pare am fi parti député loolu Sénégal rek la am France du fa am. Mhm. France ñaata yoon. la ñu convoqué assemblée. mais mais Marine Le Pen mii woowuñ ko fi naan ko dañ la fi joxoon xaalis. voilà. mais mais mais ah ma jox la exemple bi gën a palpant. mais moo ñu. ah ma jox la benn exemple ñu fi wut loolu leen defoon Abdou Diouf la même chose. Euh, hmm. kii mais Abdou Diouf dafa dem génn ci PS. mais <laughs> mais Macky mun na bàyyi aussi doom ji parti bi am na ñuy ruumandaat sax ne est-ce que du ko bàyyee doom ji. doom jan amul. waaw. <laughs> affaire. affaire ah, ah, bu ñu nangoo awur saala yilif leen nit ñi ay yet la ñuy fàq. Ah, dàq mais pourquoi nga ne que. mais au nom de quoi la Amadou Sall di yilif affaire ñi fi nekkoon di dee di nooy lacrymogène xanaa Ahmed Suzanne Camara mii ñu doon 72 heures gën a mérité Amadou Sall yor. lan mooy 72 heures moom. maanaam di la pamti pamti ci toile bi rek mais mais ñu gën a méritant. nu tudd ji ñoo nekk ci parti bi. Mm. yooyu moom ma ci ay parti bu mu jugee sama doom jël sama jarbaat man yooyoo taxoon ma xeex Abdoulaye Karim mm-hmm. mm, non ci loolu bu ko defee c'est trahir l'histoire ci loolu ko éjecté biir PDS. Mm. xam nga am jox la exemple ci doon wax. Le Pen. waaw allez-y. ko commission d'enquête De ko daf la mm-hmm. c'est vrai acteur politique munoo am link avec une puissance étrangère buy jur xaalis ak intérêt loolu Sénégal rek nga koy dégg. États-Unis moom xalaatoo ko. xalaatoo ko xalaatoo ko moo tax man la loolu pour pour raison de sécurité nationale warul am. tout à fait euh, yéen a ngi suivre seen émission face à Cheikh Ousmane ñuy débattre.